الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الذي بسق الأرض وشق لنا فيه الأنهار أحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار نعوذ بالله من النار قال تعالى كل نفس ذائقة الموت أو كل من عليها فان أو كل شيء هالك إلا وجه ñu ngi sant yàlla ñu ngi koy màggal ñu ngi koy tagg ñu ngi koy kañ ñu ngi julli tey sëlman ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan yàlla mu doolu ko xéewal moom ak waa këram ak képp koo xam ne teg na tànkam ci sunnaam ba bis pénc loolu yom na yàlla yàlla ci yàlla boole ñuy dénk suñu bopp di leen dénk ñu takkoo ragal yàlla fu ñu munti nekk dañu xam ne ci ñaar yooyu rek dañu mën a amee teranga àdduna ak àllaaxira dal nañu yàlla boole ci ñi nga xamante ne ñoo ko ragal suñu waxtaan tey xutba daanaka day continuer rek incha allah ci doomu aadama bi gën a xam taxawaayam gën a xam boppam ndax bu ñu xoolee xutba bi passé ñu ngi fàttali woon doomu aadama bi en tant que fàttekat fi ko yàlla jaarale préparé ko mu ñëw ci àdduna ba mu dem ba mënal boppam mu gis ne foofu yëpp yàlla daf ko taxaw taxaw boo xam ne bi mu demee ba conscient ci mbir yàlla fàttali ko fi mu jaar ak moom li ko war moom mooy mu jaamu ko te bañ koo bokkaale ak kenn. tey suñu waxtaan dafay continuer ba léegi mooy que nit ki bu dundee dina xaar li nga xamante ne nii moom mooy dee mooy bakken bu mos dund rek dina mos li nga xamante ne nii moom mooy dee. mu nekk mbir moo xamante ne dafa dox suñu diggante. mbir la boo xam ne mu ngi nekk suñu diggante nuñ ko mën a léebee rek comme si genre lépp dafay mel ne benn waay bu gay ne doon dàq ji mu dem a dem a dem ba ci benn teen rek daal di jàppandu ci buumu teen bi rek dugg ci biir teen bi gaynde bi taxaw ci buntu teen bi tiim ko di ko xool moom mu ngi jàppandu ci buum bi waaye nekkati su suufu teen bi jaanu ñàngoor bu mag mu ngi taxaw di ko xaar su mu jàppee buum bi xaw a teen xool ndekete ñaari jinax a ngi jàpp buum bi di ko ngereñ jinax bu weex jinax bu ñuul ñu ngi jàpp buum bi di ko ngereñ di ko ngereñ waaye li wóor li ko wóor a wóor mooy fi muy mujjeeg buum bi mooy day mujj dagg mu wàcc mu wadd dem daal di tàbbi ci li nga xamante ne moom mooy jaan bi waaye mu xool côté rek gis benn tàggu tàggu yamb gis ngeen tàggu yamb ni koy yang bi yamb bi defaree ba nga xam ne lem bi day bëri foofu mu laal ci loxoom rek loxo bi tooy xepp ak lem mu commencé di mar li nga xam ne mooy lem bi neexaayu lem bi dem ba yóbbee ko mu fàtte gaynde bi ko tiim fàtte jinax yi ngereñ li nga xamante ne mooy buum bi waaye fàtte li nga xamante mooy jaanu ñàngoor bi nga xam ne moo nekk suuf di ko xaar loolu lépp la rek boo xam ne mën nañ ko misaalee gaynde bi moom mooy dee bi ñuy dàq ji yàlla noonu lañ noonu lañ ko waxee ci alquran qul inna al mawta allazi tafirruuna minhum fa innahum mulaaqikum dee bi nga xamante ne moom ngeen di daw bu leen sonn bés dina ñëw di ngeen daje ak moom mooy gaynde bi nga xam ne mu ngi doon dàq ji waa ji buum bi mu jàpp mooy dundam mooy dund bi nga xam ne moom lay dund jinax bu weex beeg jinax bu ñuul bu weex bi mooy bëccëg gi waaye bu ñuul bi mooy li nga xam ne mooy guddi yi guddi yeeg bëccëg yi ñooy lekk suñuy fan comme jinax yi nu ñuy ngereñee buum bi chaque jour ñu ngi koy gën a ngereñ waaye chaque jour tamit ñu ngi gën a jege li nga xamante ne moom mooy jaanu ñàngoor bi nga xam ne mooy firi bàmmeel bi bàmmeel bi ñuy xaar nga xamante ne bu dem bu ñu demee moom lañ fay fekk mu nekk mbir moo xam ne mbir mu ragallu la lu raw sax jaanu ñàngoor mu ngi foofu ku ci nekk dinañ présenté yow dina am koo xamante ne dina am taxawaay boo xamante ne du ko du gis ne lii jaanu ñàngoor la waaye dina am koo xamante ne nii dina ko tiital ba buñ ko laajee du mën a nekk incha allah xam naa loolu day nekkaat ci xutba ajuma biir ñëw waaye ci orbite boobu la ñuy doxee ba àllaaxira bu soobee yàlla doomu ndey mbokk jullit ñi dañu fàttaliku li nga xamante ni moom mooy dee dañ koy suuraale ndax loolu dafa bokk ci mandargay ragal yàlla bokk na fi si xutba yi fi jaar yu bëri bu ñuy firi mandargay ragal yàlla comme ni ko Alioune Ibi Abi Taalib firi waxoon nañu ci ñeenteelu ponk bi mooy nit ki di fàttaliku bàyyi xel ci li nga xam ne mooy dagg bànneex mooy mbir boo xam ne bu ñëwee lu mu la fekkoon da nga koy bàyyi amul xaar amul xalaat amul xaar amul xalaat bi ci gën a garaaw nag mooy nit ki xamul kañ la xamul fan la xamul ci lu mu koy fekk léegi li war rek moom mooy mu préparer ko nu mu koy préparer mooy nekk ci li ko war ba bu ñëwee rek bu ko nee acca ñu mu ne ko acca ñu dem dee bi du fi bàyyi kenn comme moo fi bàyyiwul yonent yàlla yi yàlla tànn du ñu fi bàyyi ñun ñii comme moo fi bàyyiwul nit ñu baax ni du ñu fi bàyyi ñun ñii kon nañ ko préparer comme ni nga xamante ne noonu la ñuy préparer suñu mbir doomu ndey doomu ndey mbokk jullit ñi dee nekk na mbir boo xam ne mbir mu ragalul la nekk na mbir moo xamante ne nii tey koo ko waxal bugg ko koo ko waxal bugg ko et pourtant li nga bëgg àllaaxira yëpp pour nga jaar pour pour nga yegg fa il faut nga jaar ci buntu boobu nga xam ne mooy buntu dee bàyyiwul kenn doo gis mu ko kenn koo xam ne mu ngi dee keneen ki di ko ñaawal ne ko maa ko yéene kon bu ko ko defee rek daf fekk daf ko xamul waaye bu ko wóoroon ne moom mii muccul ci dex bii comme ni ko français bi di waxee que celui qui n'a atteint l'autre que celui qui n'a atteint l'autre ne se ne se moque pas de celui qui se noie xam nga proverbe bi noonu la ko waxee xaw ma maanaam ku jégeegul dex bi waragul warul reetaan ki nga xamante ne moom mooy lab moom tey bésam moom moo jot waaye yow sa bés mu ngi ci biir tey yow yaa lekk li nga xam ne mooy nàkkam bés mu ngi ci biir bés yow dinañ lekk sa nàkk kon nit ki noonu la war a dundee li nga xam ne moom mooy dee dee nekk mbir moo xamante ne bokk na ci kéemtaan yi yàlla def ginnaaw ñaari waaraate yi moom la yàlla di ñu waare ñaari waaraate yi moom la ñuy yàlla di waare benn bi jëf la te moom mooy dee bi waaye benn bi wax la te mooy alquran yàlla yii la ñuy waare yàlla alquran la ñuy waar di wax ak ñun waaye jëf bi muy jëf di ñu waar mooy rey bi mu ñuy rey muy dee bi mu dee dee bi nga xam ne moom mooy am kon nañuy bàyyi xel bu baax a baax ci li nga xamante ne moom mooy dee boobu yàlla nañu yàlla may dégg ak topp yàlla nañu yàlla xir ci boppam incha allah ci orbite boobu la ñu nekkee bu ñu toogee jugaat aqulu qawli haza wa astaghfirullahi li wa lakum sa'il muslimin min kulli zambin fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim astaghfirullah rabbana atina fid dunya alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbi wan wala doomu ndey mbokk jullit ni yàlla mu ngi ñuy wax ci alquran wan naaziaati arqa wan naashitaati nashta yàlla mu ngi ñuy xamal malaaka yi nga xamante ne ñoom ñooy ñëw duñ jël si jamono bi nga xamante ne war nañu dellu ci moom malaaka yi dañuy ñëw ci ñaari façon ñii dafay ñëw ci anam boo xamante ne dafay ñëw pour di rocc seen ruu nànk-nànk waaye ñii dafay ñëw ci anam boo xam ne dafay ñëw pour di bif seen ruu ruu dafa nekk loo xam te mu ngi ci biir jëmm bi waaye bu fekkente ne ruu la boo xam ne boroom toppatoo woon na ko ndax ruu dafay dund lii dundal ruu moom mooy jaamu yàlla lekk ak naan bi ñuy def nii dundalul suñu ruu bi suñu yaram yi lay dundal te ñun ñëpp xam ne suñu yaram bi ci suuf lay mujjee waaye ruu bi lu koy dundal moom mooy jaamu yàlla ruu bi nga xamante ne dund na moom bu koy yàlla di woo yaa ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki raadiyatan mardiya dafay nekk ruu boo xam ne bu nangu génn la moo tax dañ koy xel ci suñu baaraamu sànqalañ bi rek dékk li nga xamante ne moom mooy sarbet yu vert yi malaaka yi di indaale te parfum du ko gën a neex malaaka yi bu ñuy ñëw ay sarbet yu vert la ñuy yor te parfum du ko gën a neex ñu dékk ko ci baaraamu sànqalañ bi xelli ko ruu bi daal di génn li nga xamante ne mooy génn génn bu nànk génn bu teey ndax lan moo tax mooy xam na ne fi mu jëm jàmm dong la fay fekk ndax boroomam moo ko woo ci anam sax boo xam ne anam bu bu bu bu bu dégg jàmm la yaa ayyatuhan nafsul mutma'inna mooy bakkan bi nga xam ne moom yaroon na boppam ba nangul boroomam irji'i yàlla woo ko ilaa rabbiki raadiyatan mardiya fadxuli fi ibaadi wadxuli jannati kon kooku boo ko woowee day ñëw wuyu kooku boo ko woowee day ñëw li nga xam ne mooy wuyu waaye ruu bi nga xamante ne boroom dafa sàkkanoon dafa sàgganoon dundalu ko mu nekk ruu boo xamante ne seytaane moo ko occupé woon nga xamante ne nii daanaka ay ñaawteef rek la nekkoon kooku buñ koy woo day bañ day nekk ci ru day nekk ci biir yaram bi di jéem a réeral malaaka bi malaaka bi su ko defee su ko su ko yeeroo ba jot ko ci loosam bi rek day jékki-jékki rek lonk ko rek daal di koy bif mu daal di génn ñaari anam yi lay malaaka yi di daal di faatee doomu aadama yi su ko defee buñ ko defee ki nga xamante ne ruwam tee na ak ki nga xamante ne ruwam teewul yëpp dañuy yëkkati seen ruu yóbbu ko ci kaw ci asamaan suñ ko yóbboo ci kaw ci asamaan bu fekkente ne ruu bu tee bi la asamaan da ngay gis day ubbi buntoom ak xet gu neex gi bu rombee malaaka yi di ko nuyu di ko ñaanal su ko defee foofu lay nekk ba keroog ñuy defar jëmm bi di ko sàng di ko sàng ba jébbal ko boroomam dugal ko ci biir pax bi ci lañ koy delloowaat li nga xamante ne moom mooy ruu boobu moo tax dafay dégg jamono bi mu nekkee ci biir bàmmeel bi nit ñi nga xam ne ñoo taxaw di ko denc daf leen di dégg bay dégg seen tànk buñ koy teg di di ñibbi ni ñu koy dóoree ci suuf si suñu demee ba matal juróom-ñaari paa rek bu boobaa dañ koy sëpp daal di koy toogal loolu mooy nekk incha allah suñu xutba al- ajuma bii di ñëw ñu xam ne loolu réalité bu am la koo gëmul gëmoo yàlla ku gëmul bàmmeel ak histoire yu xew bàmmeel gëmoo yàlla dañ ko war a gëm te ñun ñëpp ñu ngi fay jaar mu nekk kumpa boo xam ne nag kumpa la boo xam ne kumpa ci ñu yegg fa la waaye nekkul kumpa ginnaaw bi ñu yàlla xamalee jaarale ko ci yonent saa salaam yonent bi mooy yonent bi nga xam ne yàlla daf ko yónne mu nekk yërmande ci xeet bi rahmatan lil alamin yonent bi xamal nañu lu ñuy xaar bàmmeel xamal nañu lu ñuy xaar barzaq bi ñuy xaarante xamal nañu lu ñuy xaar allaaxira ëllëg ak jàmm kon un homme averti en vaut un milliard wala un homme averti en vaut infini nit bu ñu la xasee avertir jeex na tàkk kon jëlal say matuwaay yonent bi avertir nañu xamal nañu kon nañu préparer loolu ki bëgg dee dee boo xam ne dee bu tey la na commencé di yar ruwam balaa malaaka bi di ñëw nga xam ne bés bu ñëwee da koy fekk ci anam boo xam ne yaroon na ruwam mu génn àdduna génn àdduna anam bii yàlla ñu yàlla musal ci ñi nga xam ne ñoom ñoo sàggane seen ruu am na nag jamono am na mbir boo xam ne ñu ngi koy wax naan nit ki bu fekkente na ko fekk mu génn àdduna xulli bëtam xamal ne xamal ne dee bu ñaaw la dee demeewul noonu nit ki mun na xulli ay bëtam teen te fekk ay àjjanaam lañ ko wan inna lazina qaalu rabbuna allah summa staqaamu tatanazalu alayhim malaik allah taxaafu wala taxzanu ba aaya bi jeex foofu yàlla daf koy bégal di ko wan àjjanaam naan ko wa absiru bil jannati lati kuntum tuadun ñu ngi lay bégal si sa àjjana baa ngi ne biñ la doon biñ la doon wax te gisoo ko woon waaye àjjana baa ngi nii yow tey yaay borom nga gis mu commencé di ko xool di bànneexu ba ni koy yàlla di jëlee su ko defee loolu lay lo si loolu lay bàyyeekoo nga ñëw gis ay bëtam xulleeku nga wàccee li nga xam ne moom mooy bëtam kon lii mooy taxawaay bi nga xamante ne nii nit ki war na ko taxawee ki nga xam ne génn àdduna ñëw nga fekk génn àdduna xulli ay bëtam wàccee li nga xam ne moom mooy ay ay ay bëtam waaye ay loxom jël ko nga dajale ko jël nga dajale li nga xam ne ay tànkam parce que am na foo xam ne bu fa koor bi tollee rek pour nga delloowaat li nga xam ne mooy cëri loolu problème lay nekk wala di nga am ay jafe-jafe pour delloowaat ko moo tax si saa si yow boo ñëwee pour doggali rek mooy wàcceel li nga xam ne mooy ay bëti jëlal ay baaraamam nga taqale ko jël ay baaraamu tànkam yu dijj yi nga taqale ko su ko defee nga defar ko ci anam bi nga xam ne mooy anam bu rafet bi nga xamante ne nag ñëw nga yàlla may la nga ñëw fekk génnagul àdduna te mu ngi sukuraat jamono boobu toogal ci wetam di wax laa ilaha illallah na xelam nekk ci bu ko waxee waxal laa ilaha illallah déedéet bu ko brusqué yow del wax rek zikr laa ilaha illallah mu dégg ko pour mun koo wax ndax képp koo xam ne kàddoom bu mujj laa ilaha illallah la fekkoon mu sax ci xolam mustaysihan biha qalbi yàlla nee na kooku àjjana lay jëm moo tax yow mi nga xam ne yaa assisté ki génn àdduna soo ñëwee fekk mu ngi tollu sukuraat toogal rek ci wetam ngay tudd laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah su ko defee su ko déggee nga koy wax dina mën topp ci wax ko loolu nekk li nga xam ne mooy occasion pour moom nga xam ne nit ki fii ba muy génn àdduna ba niñ koy sangee ba niñ koy dencee di ko jébbal boroomam yàlla mun na ko jégal foofu ay bàkkaaram kon nekkate nit ki si ay jëfam même bu ñaawee sax ñi koy taxaw am na lu ñu war a joué ci moom kon loolu war nañ ko xam lii moo dox suñu diggante te àq la boo xam ne dox na suñu diggante ñun te war nañ koo xam yàlla nañu yàlla may dégg ak topp rabbana atina fi dunya xasanatan wa fil axirati xasanatan wa qina azaban nar rabbana zalamna anfusana wa in lam taxfir lana wa tarxamna lanakunanna min alxasirin bi rahmatika ya arhamar rahim ya rabbal alamin rabbana xfir lana wa li ixwanina alladina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina illa alladina amanu rabbana innaka raufun rahim ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على الاحياء والاموات واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين قوم الى صلاتكم يرحمكم الله